lu bees tax lu tax lu bees tax. lu bees la yóbbu fi koro famille bi dina neex si si moom dina koro famille bi dina neex si si moom dina neex xam nga nu muy demee neex wax xam nga nu muy demee seex ci kër gi ak awa góoru këram dëgg seen doom ci kër gi di jaay dafa wóor si bu mu gisee xale bi loolu doy na waar eh bu mu gisee xale xaritu askan la. ngalam xaritu as la. xaritu askan la. moom ngalam xaritu as la. bërëb xaritu baay taxaar. mati seen jigéen. yaay booy. jàppal ma benn eh, foofu lu fa xew. Eh, xanaa kooru famille bi. mun na fekk yaa ngi si machine bi ngeen. waaw si sama machine bi nag saa li ma ci def ni boo xamoon. Hmm, ñoo koy gars yaa ngi loolu. problème lay def mooy loolu la. ay salaam yaa ngi ça va na nga def yaa ngi si jàpp. waaye da ngay génn. waaw ah, damay dem biir bi laa jëm. waaw ok merci. eh xamul lekk man ne booy fi nii machine bi ma ci dégg sama lépp ci la nekk mais booy xew ma nga demoon programme boobu nan nga mujjee ak moom. programme la si. ah booy programme boobu wax nga dëgg. seet booy yaa ngi absent de lu mu demee nii. non non du tax booy du tax du tax. programme boobu seet programme boobu. donc jigéen ñi am na ñoo xam ne nag saa waay mooy loolu de. waaw dafa mel na nga réer quoi man instant li ngay absent laa bëgg comprendre la. non du dara booy xam nga comme xel bu ma waxoon noonu. waaw ah, xam nga noonu la góor ñi sonn nañ de i ngi fay rek. loolu ngay wax ndànk la man jigéen ñi xoolal jigéen ñi li mu takk ak li mu sonn def dama naan kii moom séeréer ma ko def quoi. non loolu nag mooy seen problème parce que da ngay jël da ngay jël xaalis bi bëri financé ko ci. déggee dara. waaw ku des benn jabar di nga woo. man foofu laa nekk. Badou. waaw booy affaire bi naan la si. waaw ah, loolu laa bëgg a ko war échange tuuti daa am moo ko soog a war. baa ko dugg rek yow man. waaw après waay booy nekkoo de gars bees tàq tàq tàq lu bees tàq yow ku fi indi. eh koro famille bi dina neex. si si moom dina neex. eh koro famille bi dina neex. si si moom dina neex. xam nga nu muy demee. neex wax ni nu muy demee. eh xam nga nu muy demee. neex wax ni nu muy demee. Assane bi ci kër gi ak awa góoru këram. dëgg la seen doom bi ci kër gi. di jaay cubu dafa wóor si. bu ma gisee xale bi. soos. waaw ça va. maanaam soos na nga def. wax ma loolu de tey tey kaas nga yàgg si naa ko de yaa yàkkamti kaa man nga sax suñu wóor kii naan kaa kaa kaa rek pour l'instant nii ma toog nii mun ma sax toog bu baax kaa nga su ma la waxee doo paa bi si kër gi war a fi ah. kii suma patron bi nijaay. waaw yow daal moo fi dikk ne dangay du xam nag soo ko gisoon nag seet seet paa bi dañu la solo bërëb xanaa woo paa bi man paa yi dañ maa jaaxal da leen gis parfois ñuy toog di waaraate ma instant yi waruñoo def lu dul dem di jullee yooyu te ñoo fi dàq joxaat paa bi moom xool. ñu ngi paa la xoolul de yow gisoo ko sax weer yi lii bi nag borom bi. xam naa ne Dakar te dama ko jógee dëkk ba nag tànk yi xar ba nga xam ne yow yow lu mu lekk rek damay doxaan. yow wax nga dëgg de bàyyi ci boppam mooy loolu waaw nag waxuma loolu de ki ma romboon sànq nii ci bunt bi kooku kan la. si yow gis nga kan la sama patron. waaw. waaw baax na yow lañ doon firnde. man ragaluma loolu jànk. est-ce que gis nga lim la xoolee ci sama patron bi. gannaaw <laughs> boobu moom dama koy gérer dama koy teg sa loxo sax xam naa doy nga ma ci. ah ban see rek sama mën naa nga bàyyi moom ngeen nekk loolu ma koy lijjanti. <laughs> waaw baax na waaw instant yii damay dem nag. wala toog dem rek. ah toog dem ma foofu dana neex